asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngeen bokk daaray Gaye seen bokkum talibe sëñ Maxtaar Buso moo leen lu bari di sant bu baax leen gërëm bu baax di leen ndokkeel bu baax leen ñaanal jàmm ak xéewal ak barke ñaan ñu fekk ko déwén yu baree bare di bal ñëpp xaq di baal ñëpp xaq di ñaan yàlla bool nu baal te bool nu jéggal loolu jàllee dafa am ñaari ndigal yu bàyyeekoo ci kilifa rabita bi sëñ Basiru Mbàkke mu sëñ Habibu dafa wax ne jëlee na ndigal ci sëñ Muntaxa Basiiru Mbakke dibéer ji njëkk ci weeru tamxarit ñu dajaloo jàng alxuraan ci jàkka yi ci daara yi alxuraan ju yaatu ju sedd xol ju am pastéef ngir ñaan yàlla màggal gii jublu ñu dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim mu agsi mu yàlla ak jàmm ñu am ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla dàq mbas mi ak balaa bi ñu magal ko ci jàmm ak salaam dara bañ xew luy naqari mbaa luy gàllankoor mbaa luy fitna mbaa jàngoro ji tasaaroo mbala dara nee na bu bés boobu itam sëriñ bi nee na daa bëgg nu wéyal njàng mi nekk saxal benn kaamil mbaa ñaar mbaa ñett ci kooku man ba bis mag gi jeex incha allah bu set dañu wàcce kaamil bu ñu tàmbalee benn fan tam xarit ba mag gi jeex la comme nag suñu Saliou Mbacke digle woon jamono yooyu jàll na incha allah loolu ñu ngi koy sàkku ci seen daara yëpp ñu bàyyi ko xel te waajal ko te am ci pas-pas te am ci pëstéef te fannoo ko te yéena ci aw yiw yéena ci mucc ak xéwal ak jërëñu ak dolleeku ak mucc ko àllaaxira yàlla ci réew jàmm ñu màggal ba mu jàll ñu am ci ndam bu baax a baax jàngoro bi jeexee fi tàkk si mun taxaa mucc dund wér taalibe yëpp am mucc am dund am wér am xéwal bekk seen ci waa leen di ñaan bu fekkee abonné goo nga bës subscribe après nga daal di bës touche de notification bi ngir nga mën a am bépp vidéo buñ yees ñu dugal jëf